bokk yi gannaaw bu nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci xew-xew jamono muy liñ doon ñaan ñépp di ko ñaan gannaaw buñ ci jaaxlee muy am ndox ndox mi nag tabarakallahu na gën a dolliku waaye nag am na ci ñooñ lottu nañ ci lool lotte nañ ci lool yàlla moo koy wàcce waaye nag nañu koy saytoo ba ku ca bëgg a jariñu jariñu ca te du lor kenn ci ay yoxoy nit lay nekk ñu ngi masaw bu baax a baax ñi nga xam ne seeni kër ndox ma xëccoo na ko ñoom bañ bàyyee ko ak ndox ma seenu dund yàqu ca seeni ndaw wéradi ca waaye seenu dund it ànd naa ndox ma dem te xamuñu fuñ jëm bokk yi nag ñi nga xam ne xaw ma ñu mu doon waaye nu ñuy saytoo ndox ci ab dëkk ba muy jariñ te du lor kenn war nañoo xool bu baax a baax ci ni Seydina Omar yore woon ba ñoo ñëw ci lenn ci lim yore woon ñu xam ne Seydina Omar moomu royukaay bu wóor a wóor la ci képp koo xam ne dangaa yor lu la nit ñi jox bala ñoo ñëw ci ni mu yore woon ci lenn ci lu néew ak nu mu ca defoon ñu xam ne kenn la ci ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàllaloon ay yoxoom di ñaan yàlla mu boole ko ci mbooloom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ñaan yàlla yàlla na nga boole ñaari omar yi kenn ci ñoom bu mu ñaari ñëpp mënta am na ci kenn bokk fekk yàlla dogal na ba noppi kenn cay bokk muy amr ibn alxataab ak amr ibn hisham ñu koy wax abu lahab wala abu jahal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bopp moo ko tuddee al faruq mooy ki nga xam ne bu dëgg taxawee caaxaan taxaw moo naan fee la dëgg féete te amu ci ku muy rus amu ci ku muy sëdd cër abdullah ibn mas'ud nee na omar laata muy bi mu duggee ci lislaam lislaam dafa noyyiwaat ba àgg fu musta àgg waaye bi yonent bi di jóge madina makka di dem madina it di gàddaay doxe na ca doxin woo xam ne yàllaa sottal lépp ci njiitul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dox na ci jéego bopp bu yéeme la ndax ba nit ñay dem di nëbbutu guddi di dem ñii di teel a xëy ñii di rañaan mooy jóg xaaju guddi wala bu njël di jub wala yuq wala jànq ngir bañ ku leen gis moom ba muy laata dem daa dem fa kaaba ga nodd fa julli fa ne maa ngi nii di dem ku ma ñeme fekk ma ci xurwee koo xam ne bëgg ngaa ñàkk boroom kër tey topp ma ku bëgg a ñàkk bàyyi topp ma nit ñi ne xiim mu daagu ndànk dem nam ko bëggee waaye bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wane lenn ci yi sa ni saxaaba yi mel ba agsi ci moom nee na ndigalul suñu boroom di moom ku ca mettee ni moom bariwul buy agsi rek xamut xamutul kenn lu may na sotti wala bakkanam bañ koo fekke bi ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it amr ibn al-As moo ko laaj kan nga gën a bëgg ci gaay yi la topp yii di yii fi nekk ak yi ñëw ëllëg mu ne ñi fi nekk de moom Abu Bakar Abu Bakar kenn gën a lu ma ko ci bu doon suñ jamono dañuy maslaa ak ñëpp naan ñëpp a baax de wala ñëpp laa yemale waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar moo tax ci fiq bu ñuy jàng ñi gën ci nit ñi gannaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam si Abu Bakar lañ ci teg waaye Omar moo ca tege mu ne yonent bi gannaaw Abu Bakar mu ne ko Omar ak diw ak diw ak diw waaye ba mu ne benn moom la ca teg kon boobu boroomu may la goo xam ne lu ci bari moo ko wut nag koo xam ne yonent bi daana ñaan suñu borom mu boole ko ci lislaam yàlla dogal muy moom kon doonut benn waay rek waaye bokk yi fitam boobee ak taxawaayam boobee buñ ne ku mën a woor kenn du dem mu des buñ ne ku mën a taxaw guddi ay rakaa yu dul jeex kenn du dem mu des buñ dee ragal yàlla buñ ne ragal yàlla la ñuy nattal nit ñi nag amoon na fi ay rongoñ di jaar muy fii li ko tàmbalee ci gër yi jëm suuf nee nañ ay ñuul ñuul yu fa nekkoon yoo xam ne rongoñ yu bari moo ko teg moo ko ko tegoon ndax buñ ne yàlla nee na wala yonent bi nee na wala al ñuy jàng alxuraan rek mu tàmbalee jooy waaye buñ dee bu ñuy waxtaanee ku dëddu àdduna dëgg-dëgg ak mën a joxe lim am lépp toog moom nam daan def moo yéeme balaa masa añ wala masa reer da koy wóor na ñu bare bare bari añ nañ ba noppi wala reer nañ ba noppi mu soog a lekk bu desul mu jàpp ci yàlla waaye buñ dee wax nag ku dëgër këng koo xam ne kii dara mënu koo yëngal li yëngalaat seytaan daf caa am doole waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo moo ne Omar mbedd mu dugg seytaane génn ko bokk yi nag daraja jooju ku ko yàlla defal te fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dund nu muy mel bu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ma nga woon ca kaw de ni ñëpp ndax bokk na ci fukk yonent bi ne àjjana ngeen jëm bokk na ci ñim wax ne bu ngeen fii bàyyi ko bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko ñu tànn Seydina Abu Bakr mu def taxaw fa yonent bi daa taxaw di wax lam daa wax ba mu fii bëgg a bàyyiku moom la joxañ waaye bokk yi ñu jël ci ñaar rek yoo xam ne ku jiite ku nekk war nga koo bàyyi xel bu baax rawati nag bu fekkee ñi nga jiite da cay am ñu ne ci jafe-jafe ku ñuy wax aslam nee na ànd naa ak moom guddi mu di ko gunge muy wër ci dëkk bi daana toog ba suuf sedd mu jóg yor tànkam di wër di xool fu dox ak fu doxut kuy jàmbat ak kuy sant ñuy dox ba ni xégg ci genn kër goo xam ne gone yaa ngay jooy dengoo mu ne ki mu ne aslam waaw te ñu dugg ci kër gi ba xam li fi xew ba gone yi di jooy ba ñu duggee seen soxna lañ fa fekk mu yor ay gone yu ndaw yu magaate gone yu magante tiim lenn cin loo xam ne soxna saa ngay xam rek muy wañax ñu ne ko waaw gone yi lu ñuy jooy Omar a ko ko wax Seydina Omar a ko ko wax mu ne ko xiif xiif da la ñuy jooy mu ne ko xanaa nekkul togg nii mu ne ko tëgguma dara ndoxum kese laa ci def di xam rek ndax seenum xel di dal léeg-léeg kenn nelaw ba ba ñuy nelawandoo ma dem tëri mu ne ko xanaa loolu kilifa dëkk bi yëgu ko mu ne ko kooku kay ba ma waxee waxam mu ne ko kan ci mu ne ko Omar kay ba ma waxee waxam mu dal di génn nëbbu ko ko jooy jooy yi metti ne aslam kaay ju dem ñu dem ca magasin ba nga magasin ba nga xam ne baytul maal dañ ko tuddee woon fëriñ ba nekk fa diw ga ne fa mboolem li ñu mën a jëfandikoo nekk fa Seydina Omar ne aslam jàppal ñu jàpp ab saako mu ne ko yan ma ko mu ne ko yow amiral muminin xalifatu rasul mu ne ko yan ma ko mu yan ko benn mu ne ko bootal ma benn mu ne ko bàyyi ma yanu ko mu ne ko déedéet ndax bu ëllëgee samay bàkkaar doo ma ko yanoon soo ma mënee garanti ne ëllëg yaa ma yanoon samay bàkkaar ma yan la ko kooku yanu ànd ak moom mu ñëw ba sa kër soxna sax mu dindi cin la def cëg diw ba ñu war a def fëriñ ba mu xooy ko ci loxoom xóoyalal gone ya di xamb taal ba tëf taal ba tëf ko mooy def ca matt ba mu fees dell la ca nangu tàkk mu di ko wal ak gémmiñam te boobu mooy xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu sotti mu yàq ko upp ba mu sedd mu jox gone yi ñu lekk di nelaw par kenn ba ñëpp nelaw mu ne soxna su noo ngi dem soxna su ñaanal ko yàlla ne ko wuute nga ak Omar ba tey xamul nu mu tudd xamul fu mu jóge bokk yi nag koo xam ne ëllëg si biir mënu la yenul say bakkaar boobu yan mën naa bàyyi xel ku la ne ku la bëgg a noppal dañ lay sonal jëru ko lépp nga dox xoolal na Seydina Omar jiitee woon nit ñi jugale sa tànk foo ko dégg dem fa xool gisal gisal sa bopp ndax ki gis bokkut ak ki ñuy nett am nañu ko soxla lool te bokk yi am na si ñoom tey jii amuñu fu ñu fanaan ak démb ak bërki démb te am na ay warab yu tëjee yoo xam ne kenn nekku ca lu tey ñu yóbbu leen ci ñaareel ba mooy ku ñuy wax Harmuzan ku daa diisoo la ak Kisra bii Seydina Abubakar wàccee Seydina Omar toog ba amuk diir daa jóg ne xaaral ma seeti dal gi ma dégg ca Madina ba xam lu ko waral dëkk boo xam ne dëkk bu xumb la amul xuloo amul xeex amul jàppal amul bàyyil amul kalaamente naa dem ba xool ba xam lu ko waral foofu it bokk yi ku jiite ku ne war nga koy war ngaa bàyyi xel boo dem jullit nga na Seydina Omar def ba Harmuzan duggee ca dëkk ba dana ana fa paleb xalifa bi nekk waa mbedd mi ne ko amutu pale amut pale ñu ne ko amut pale mu ne ana këram bokk ñu wan ko këram ba mu ñëwee mi ngi fekk mu doon tabaxu ban bu doy waar bu nekk solo te moom ba muy ñëw lam tegoon ca boppam ñi naan wurus la ñu naan xaalis la sol mbubum sooy bu doon suñu jamono ñu naan sol mbaxana mu mel nangam mel nangam moo xam ne kenn mënu koo am ba noppi sol ci ndimo yi gën a baax ci ndimo yi xew léegi yi nga xam ne ay benn benn ko mën a am mu sol ca ba ca gën ñu mën ko këram muy tabaxu ban bu doyadi boo xam ne ñaxane ca kaw ñu dott ko ndax bañ ngelaw li naawal ko dott mooy def ak xànc sul ko ci suuf dë dëhërale ko dara loo xam ne ngelaw du ko mën a yóbbaale mu nuyoo doomam génn doomi Seydina Omar génn mu ne ko ana xalifa bi mu ne ko dema seeti ko ca jàkka ja wala boog ci pegg dëkk bi rek ndax day demantu léeg day demantule rek day demantu waaye ba mu demee ci jàkka ji fekk ko fa ndax du waxtu wu ñu nekk ci jàkka ji fa mu ko fekk ci ron garab la ko fekk muy nelaw ci ron garab rek ku kuy gàdde jégewu fa port benn protocole jégewu fa moom kenn ba mu négee lu jaadu mu laal ko mu jóg mu ne ko xam nga ma mu ne ko déet mu ne ko may mustashaaru Kisra may conseiller am premier conseiller man la mu ne ko loolu lu doon say tànk mu ne ko waxatuma ci li ma doon indi waaye melokaan yi ma la fekk te fa ab jullit nekk yaa ko jiite fi mu toll nii ubbi nga ay dëkk toj ay tata ñu fekk la nga neew ca doon garab gu mel nii kenn newu fi sa maano gi ma doon wax dégg gis naa ko atte bu jub bi nga yore mbooloo mi gis naa ko moo tax nga dal xel bay nelaw moo tax sam xel dal ba fu la neex fu la nelaw dikkale mën nga faa nelawee doo xaal doo xalaat dara foofu nag bokk yi lañ cay dégg mooy kon moom lam jàpp moom Seydina Omar lam yoroon moomu ko moomu ko woon la magasin bay fees fees mënoon na caa defare këram defarin woo xam ne ku ñëw ci dëkk bi da nga xam ne fii la xalifa bi dëkk wala mu di ca solo wala muy ànd ak mbooloo moo xam ne mi kenn du ko jege kenn du ko laal waaye nag dafa xamaloon mbooloo mi ne leen kàddu yu Seydina Aboubacar waxoon ne gënuma leen gënuma leen a jub waaye yéen ma jiital nag su ngeen gisee ma def loo xam ne wuute naag la yonent bi defoon wax leen ma ko su ma ko nanguwut a bàyyi bàyyi leen ma te dem ci keneen noonu la Seydina Omar yore woon daan jugal boppam di dox ci dëkk bi ba ne xegg ci soxna soo xam ne si yurul lu mu toggal njaboot ga te jàpp ne la ko dal la ko dal amul lu mu toogal njaboot ga daa mënta gis xalifa bi ba àggee ko ko waaye xalifa ba ba àggal boppam ba gisal boppam foofu bind bu rëy ngi fi kon ñëw di la wax naan la lépp baax na lépp a ngi dox ñëpp a ngi sant baax na de am na ñu koy wax mu doon dëgg waaye da doon jar jóg nag sol saw dal la di wëral sa bopp rawati nag fa gën a sori ndax fi nga xam ne moo jege dëkk yu mag yi ñaare dana am ak nit dana am ay yoon dana am ay kër yu rafet waaye soo attee mbooloo mi ci kër yu rafet yooyu ak yoon yu ak lamp yu leer yooyu lamp yi mooy ak nit da ngay defee ni lépp dox te fekk lu bari doxul moo tax nafaraat mag ña Seydina Omar sax ñu bari ko ci mag du da leen a magoon da leen a ëppi at waaye ci jikko ji ak ci melokaan ba ak ci jëf ja moo tax ñu di ko tudde mag moo ñam dendaloon ñii ñu maase ñii mu mag leen ñii ñu mag ko waaye ñëpp aw mag lañ leen tudde woon la ko waral mooy dañ doon dund njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne kenn ku ci nekk ab sàmm la te kenn ku nekk daañu la laaj lam doon sàmm moom Seydina Omar mas na jóg di seetle waajoo xam ne am muusam a réer muusam moo ko réer mu ànd ak moom di ko wër ba ñaqtoo xëpp ñu ne ko ku toll ni yow di wër muus mu réer ma defee ne farata ngay dox mu ne leen si ndax sax bu réer ca Bagdad ab jullit moomoon ko ci sama loxo la nekk yàlla dana ma laaj si ndax boobee ëllëg nu ko nu mu doon dund si jullit kon bokk bokk yi jóg jot na jóg jëm ci so yitte yi nit ñi taxawu leen jot na sëkk xaw ma ne ku ko war a saafara waaye képp koo xam ne mën nga ci dara wala nga amul sañ-sañ nañ xam ne nit ñi sonn nañu lool du benn dëkk bii kese waaye bari na fu nit ñi sonne te baat képp mën na leen a dimbale benn baat képp mën na leen a taxaw kon bokk nañ jàng ci képp ku jiite fexe ba am daraja gi Seydina Omar amoon ba yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàkkaarloo yàlla di ko ñaan mu dugg si ci mbooloon ñaareel ba it am fit woo xam ne wii lii nga nekk mu wóor la mooy dëgg ku ca bëgg a jaar ci sa kanam lay ku ca bëgg ku la ko bëgg xañ ci sa kanam lay taxaw ñaareel ba it wàcce boppam suufe bay wër ci mbedd yi nga xam ne kenn ñemewu fa dugg moo koy wan yooya ndax kooka fa mu dëkk ku ko dégg da nga xam ne bokkut ci ñi bari la ndax ñi bari la ñaar ñoo gën a jege dëkk kon bokk nañuy tàmbalee ca wàllaa jëm si ci biir ndax amul lenn luy màgg loo xam ne day tàmbalee si kaw jëm suuf waaye luy màgg ci suuf la tàmbalee jëm kaw yàlla na yàlla defal dëkk ak topp te musal ñu seytaane ki pakkam ñi amuti kër nañ leen wutal fu ñu dugg ndax am na fu ñu tabax tëj ko ñi amut lu ñu lekk di ko dunde ba mën a jaamu yàlla nañ leen fekk fa ñu nekk dimbale leen ndax am na ci warab yooyu soo fa demee mag nga si ñaa ngi ne góor lu ne nekk fa te bokk yi li ñu li ñu koy li ñuy mujjee ci magasin yooyu du dara lu dul xëy saam ko ci penc mi di ko sedd la rek naan kii nangami saako la am kii nangami saako la am te fekk booba kooko dem na bu yàgg kon boog nañ gaaw def ci bàmmeel yi bala ñu caa def ni ku mel ne bokk di waxee waxi waroom xam-xam yi la tekki nañ def ci bàmmeel yi bala ñu caa def mooy lu fa way yóbbaliwut du ko fa fekk mën naa am nag lu ñu toppal ci ginnaawam ci ay ñaan naan yàlla na ko yàlla na ko ba yàlla dogal sa gémmiñ goog yàlla day nangu ñaanam waaye lam fa fekk mu moom ko moom dara gënu ko wóor يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين